ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi Alpha Thiam boo jiitee Force Nouvelle euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. jërëjëf euh, madame Ngom maa ngi lay euh, sant la gërëm ci sa invitation. coalition Alpha Thiam 2024 moom moo la investir ci week bi euh, pour nga nekk candidat ci élection bi ñu mal lan moo waral nga décider nekk candidat ñuy souligner ne doo peut-être gan carrément ci politique parce que sa papa monsieur le ministre si Thiam moo jiite woon force nouvelle bi nga jiite tey donc xëy na am na looy wéyal mais lan moo waral dëgg-dëgg nga décider nekk candidat ci élection bi. jërëjëf euh, Sénégal toll na foo xam ne tey euh, mën nañu wax ne que ne ndóol bi euh, metti na sonal na tey góorgóorlu yi sonal na borom kër gu ne gis nañ ne que ne nguur gi taxawaayam manqué na yërmande ci Sénégal gi ñu nekk te jiite réew boo ci mënul ànd ak yërmande ah dañuy poser question ne waaw kon suñu njiit yi lu tax ñu jéem a laaj ci réew mi pour di ko bugg ko jiite. Euh, boo jiitee réew mi ba pare ñi nga xamee ne que ñoo nekk si askan ñu ngi souffrir ñu ngi sonn ñu ngi mettitlu seen dundin bu boobaa kat ne waaw dëkk bi euh, mu ngi commencé nekk dëkk boo xamee ne que ne. Euh, nit yi gisatuñu seen bopp ci biir li firande ma ne dëkk bi nit ñi gisatuñu seen bopp ci biir mooy yaakaaru dëkk mooy lan mooy ndaw yi tey boo jëlee suñu ndaw yi ñu ngi xotti wuti ji euh, Nicaragua ñi ñu ngi jaar ci désert bi wu ne dañuy wuti ji ay Libye Maroc se xamuñu jéey ak catastrophe yi nga xamee ne que moo leen di fa fekk ji ñii ñu ngi dugg gaal gi wuti ji géej gi euh, et cetera donc boo xoolee ñu def rappel tuuti ci gannaaw Abdoulaye Wade en 2012 li nga xamee ne ko moo ko fi jëlee woon lan la woon mbënd bi mbëkk mi bu ñu fàttee lu problème des institutions waaw tey jii nii Macky Sall mu ngi nii di dem lan lañu fi bàyyil xale yaa ngi gën a mbëkk mbëkk bu metti Euh, ba ci trouver yoon yoo xamee ne kenn mënu ko woon sax imaginer xoolal Nicaragua ak Mexique nu mu soree te ñu fay dem ñu ngi trouver tey ji nii mbënd bi mu ngi rajoxoo ba màggalum Tuuba bii nii li fa nekk ci catastrophe ci mbënd bi kenn mënu ko wax ak sutural la da ngay dem fu mel ni zone de captage fi nga xamee ne que ne dañu war a capter ndox bi xamuma ban qualité d'ingénieur lañu am ñu ñu encercler ko bétonné mur bi ba nga xamee ne foofu boo fa demee fi ndox bi war a dugg dafa sec dafa wow koŋ ndox bi mu ngi ci tali yi kër yi zone de captage nit ñi dañuy teg ay briques ki pont yu ndaw pour mën a dem dugg seen kër yi boutique yàqu nañu kër mais ñun tey ji nii dañuy ne ci ban Sénégal lañ ne Sénégal boo xamee ne que dafa metti Sénégal boo xamee ne que dund bi boo la fi daan jar keccax cent cinquante deux cent keccax mu ngi si deux mille trois cent deux mille tey ji nii ana soble bi ñaata lay jar ñu ne ñu ngi dem bay wax ay deux mille francs soble ay mille cinq cent kii mille quatre cent léegi boo demee ba nga xamee ne que dem nga ba Mboro démb maa ngi woon Mboro Mboro boo fa demee nga ngay gis benn saamu carotte ñetti karoot lañ la si tegal gën kaa bëri juróomi carotte ñu ne juróomi carotte yi nii téeméer waaw ñu ne ana nguur gi ci situation yëpp situation jeunesse bi situation chômage bi situation sanitaire bi boo xoolee dëkk boo xamee ne da nga feebar nga bëgg faju faju tëla da ngay dem hôpital ànd ak sa malade ñu ne la yow bu fekkee ne amoo ko fajee c'est ko fiy dugal donc non assistance à personne en danger disparaître na waaw yërmande foofu anamu yërmandeem amatu fa yow bu fekkee na nga war a fay facture Sénélec ñu ne Sénélec nekk na entreprise boo xamee ne que ne moo ëpp bénéfice sax Sonatel nga ne waaw lii ban yërmande la yërmande bénéfice boo xamee ne que yow monopole nga yor nga noot nit ñi bës seen facture yi génn woyofal ñu foog ne woyofal bi woyof na woyofal bi na ngay xool y a deux ans trois ans quatre ans li woyofal doon jar fii ci réew mi woyofal léegi dem na ba nga xamee ne dañ ko mujj wooyee diisal ci koñ parce que par moitié nekk na loo xamee ne que ne dafa cher donc courant bi cher ndox bi cher dund gi cher te yow Sénégal goo xamee ne lépp lu ñu fi am dañ koy dem di ko jébaane ci biti waaw te ñu mën ko defar fii suñu biir dëkk dañu ne lii du yoon lii du dëgg te lii du loo xamee ne que ne dafa jaadu li ñu xam mooy boo xoolee lii nga ne lan moo ñu ko teg dara ñu ko dul mbuumu jàmm boo xamee ne que dañul ba tey dañoo jël suñu bagage yëpp ñu dem jébbal ko tey ji nii tubaab yi lépp dañuy dem jëli ji ko ci biti yow ndox bi ngay naan ci tubaab bi nga koy jëlee yow euh, suukar bi ngay lekk ci tubaab bi lay jógee dawlin bi ngay lekk ci tubaab bi la ngay jógee ceeb bi sax da nga koy importer si nga xamee ne que yow Sénégal am nga fi suuf am nga ndaw am nga loo xamee ne mën nga ko defaree sa bopp am nga ndox manqué wul waaw ñu ne courant bi dafa cher essence bi dafa cher loolu laal dafa cher waaw ñu ne nag léegi ñun jot na bu fekkee ni que ñii dañoo tële def nañ fi cinq ans def nañ fi sept ans def fi cinq ans douze ans au pouvoir ba pare problème yi mënaguñ ko adressé tey sénégalais yi soxla wuñu koo xamee ni que ne dafay jël xaalis def ko seen poche déedéet dañoo soxla nga wàññi leen dund gi. nga maîtriser leen inflation bi fexe ba nga xamee ne que kii gagné cent mille kii gagné deux cent mille kii gagné cinq cent mille wala un million dina dese xaalis ba épargner te gérer na njabootam te mu ngi dund dund boo xamee ne que ne bakkanam mu ngi koy gis ci réew mi réew mi bakkana na réew mi neex na réew mi am na jàmm mais réew moo xamee ne que ñëpp a stressé sa kër sax bëggoo fa dugg parce que dañuy laaj dépense le lendemain xamoo nooy def réew moo xamee ne que nit ñi lekkatuñu matin midi soir ah catastrophe mu ngi commencé nekk di am. moo tax loolu yëpp bu ñu ko gisee gis manquement yi nga xamee ne que moo fi am gis situation de recul démocratique bi nga xamee ne que moo am suñu dëkk bi gis tey ji ni chomage bi. explosé ci xale yi dañuy jox ay chiffres ay vingt cinq pour cent mais ñun gëmuñu chiffres yooyu ndaxte boo duggee ci réalité yi kër goo dugg duggaat ci beneen kër demaat ci beneen kër da ngay xool ñëpp ñu ngi chômé ci biir kër gi paa bi maire bi ñu ngi retraite xale yi am nañu ay diplôme jànguñu ñii amuñu diplôme ñi amuñu jàng rêve bi ñu am yëpp mooy ni ñuy demee ci biti waaw ban Sénégal la Sénégal goo xamee ne que yaakaar amoon na ko fi ba nga xamee ne que amoon nañ ko ci président Macky parce que foogoon nañ ko bu ñëwee lii du fi am ba ñu ne yaakaar gi tas na yaakaar gi bazardé nañ ko léegi lan la ñuy wax ñi dañoo bennoo tasaare suñu yaakaar loolu la ñuy wax ci dëkk bi mais loolu métti na xanaa signal boobu noonu xanaa président déggu ko bu ko déggee na raxas loxoom tey ji nii ci lii te nga xamee ne moo fi nekk ci élection yi te nga xamee ne moo war a ñëw mu bàyyi sénégalais ñu tànn ki nga xamee ne que war nañ ko tànnal seen bopp dégg nañ la itam ci sa discours bu weesoo changement souveraineté indépendance ngay wax euh, système xeex système bi daaneel système bi jëlee fi bi mën nañ la jàppee anti système waaw Euh, boo nee anti système tey mën naa ne système bi kenn bugg ko matul sax ñu laaj ndax yow anti système ma wala nga pour nga système boo nee pour système système mooy li fi nekk tey. fi nekk tey te nga xamee ne que dara doxu si ñun dañu ne lii bugguñu ko alors est-ce que bu fekkee ne que boo nee bugguwoo ko rek mooy yow kon anti système man xaw ma lu ñu woowee anti système bu dee loolu mooy anti système kon anti système laa garaaw ndaxte li fi nekk du wëy du sax te dañ koy daggal fi mu ne nii xarale yéen xale yi. yenn jeunesse bi yenn ñi nekk Dakaaru yenn ñi nga xamee ne que ñu ngi ci au fin fond du Sénégal ñu ngi ci àll bi et cetera ñëpp yeewu nañu euh, li fi xew mooy sénégalais xam na lan mooy vote te vote bi nii war nañu fexe ba dootul nirooti yeneen vote yi nga xam ne ñoo fi daan am vote nga gis gars di ñëw di la jox 1000 francs 2000 francs 5000 di jënd sa kàddu jënd sa baat et ñu bàyyi la fii ak gàcce pendant 5 ans nga toog jàpp sa bopp di wax waaye mais lii ban njëriñ lañu am vote nit mi nanku ko seen biir lañ fi nekkal mais lu ñu nekk milliard milliardaire lu ñu distribuer t-shirt lu ñu distribuer tissu lu ñu distribuer xaalis ku ñu ko jox lekk ko comme ni ko Ablaye Wade daan waxee lekk ko ba jeex tàkk nga toog xamee ni que ne ministre rek daf fiy nekk fii nii milliardaire ku ñu fal ministre gars yi ñëw tëggal la tàccu la parce que nañ nekk nga milliardaire déjà mais lii seen catastrophe dañ leen war a auditer on ne peut pas comprendre naka la ministre mën a nekkee milliardaire ci réew mu nekk ndóol comme Sénégal Sénégal rek moo am ay ministres yoo xam ne ay milliardaires demal France Guèye demal Italie demal États-Unis demal nga nit yi bu ñu nekkee ci ministre dañuy toog liggéey seen liggéey wàcc dugg bus wàcc dugg métro euh, dugg seen oto dem def li ñuy def ku ci dugg ku ci fayloo ay say frais wu taxi wala seen xam ne bokk si mais dañ topp dañ lay poursuivre waaw mais suñu dëkk bi nag ñun bàyyeeku nañu bàyyeeku boo xamee ne que ne dañuy ne mën nañu pardonner l'impardonnable nous sommes un pays pauvre et nous ne accepter que des ministres aujourd'hui dañuy nekk ci dëkk boo xamee ne dañuy toog ñu ñuy wax ne que ay milliardaires lañu mais dafa metti ñëpp la metti ah ñëpp la métti parce que corruption sàcc meesuwul loolu pour avoir un milliard mën nañ jàpp ne que ne milliard mooy pendant trente cinq ans yaa ngi gagné deux millions quatre cent deux millions quatre cent boo xam ne tojoo si dara jëndoo si ceeb fayoo si dowlin fayoo si minaan fayoo si bon fayoo si école fayoo si dara deux milliards quatre cent boo xam ne da nga koy épargné pendant trente cinq ans pour mu mën la jox un milliard kan moo ko mën mënuñu ko yorewuñu kenn benn bon benn chauffeur la ñu am créé wuñu entreprise créé wuñu tous ñooñu amuñu valeur ajoutée ci dëkk te loolu du tax nga a nekk milliardaire milliardaire li ngay ne da ngay nekk Dangote milliardaire li nga liggéey nga am entreprise nga nga créer de la richesse créer de la valeur am ay nit yoo xam ne da nga leen te ñuy liggéey nit yooyu di liggéey di créer richesse loolu moo mën a tax tey richesse boobu nga mën a nekk milliardaire mais damay politique pour nekk milliardaire loolu ku ko wax rek ne da nga yor milliardaire ci politique loolu war nañu xoolaat dëkk bi nu mu demee dégg nañ la tamit ngay wax libération détenu politique yi ba tudd Ousmane Sonko ndax da jàpp ne loola xew Euh, te muy fitna sénégalais di ko dund depuis trois ans euh, dafa tekki ne dañoo dellu ginnaaw ci wàllu démocratie parce que bi ngay wax ci démocratie booba nga tuddee loola euh, da nga gis ne am na lu leen boole. suñu démocratie dafa dellu gannaaw ak doole te dañ koy naxarlu dañ koy naxarlu démocratie boo xamee ne que Macky Sall bi mu jëlee ngir réew mi ba tey kiñ fi njëkk a tëj Karim Wade la te affaire bi mujjeewul fenn. institution yi ko tëjoon xaalis bu bëri bi ñu si def ak affaire yëpp ne nañ ko dissoudre nañ ko sànni nañ ko tëj nañ ko fee xanaa dañoo ragal foog ne que ne euh, dafa am loo xamee ne que dafa nar a ñëw pour ñoom moo tax ñu gaawantu dissoudre institution yooyu noonu waaw démocratie boo xamee ne que ne dañu avancé tuuti encore ak Macky Sall ñu jibaat élection mu ne ràpp ci kaso bi xam ne que am na candidat boo xam ne foog na dem deuxième tour Khalifa Sall ñu ñu tëj ko encore. waaw bii ñu jibaat ay ñu toogaat bu mu neex ñu newaat ràpp beneen candidat Ousmane Sonko ne ko doo bokk ci élection yi waaw léegi nag. xanaa benn yoon ñaar yoon ñett yoon mu mel ni ñun mënuñu jàng leçon ci loolu kon waa ji lan la en réalité ni muy doxee nii ni muy procédé nii loolu lan lañ ko mën a qualifier yow élection dafa war a nekk élection transparente élection yoo xamee ne que dafa war a mën a nekk inclusif maanaam ñëpp bokk waaw boo ne élection jot na nga ne yow da ngay tànn ñi nga xamee ne ñooy bokk ci élection yi par le biais de parrainage nga wala nga tànn ko par le biais d' waaw loolu dafay nekk loo xam ne dafay mel ni sabotage institution looloo tax ñu ne nos institutions dañu affaissé wu dañu wàcc dañ leen nasaxal te loolu baaxul ci réew parce que situation yooyu te réew mi di jaay doole euh, jël su constitution di sonal nit ñi nit yi di dund ay métit nit yi amuñu lu ñu lekk bu doy nit yi li ñuy dundee dafa cher li ñuy sangoo dafa cher euh, bu ñu transport dafa cher ñëpp di yuuxu kenn mënu si génn ba pare bu ñu nee dañu war a voter pour tànn ñeneen ñoo xamee ne ko ñoo ñëw nga leen noo doo leen tànn maa leen di tàndal wala man damay tëj ñi nga xam ne laay tëj ba pare ne loolu moo tax ci yeneen dëkk yi nga xam ne moo nekk Afrique tey ji nii boo xoolee armée bi ñëw teg fa tànk jël réew yi te loolu mu ngir raam wut si Sénégal boo xoolee Afrique de l'Ouest yëpp Sénégal rek pour le moment moo épargné si loolu te ñun dañuy lancer tey ji nii un message fort en disant au président il faut ouvrir beneen série de dialogue dialogue boo xamee ne que c'est nettement plus inclusif ñëpp bokk ci ñu xool nu ñuy organiser élection yi ñuy dëgmal naka la ñuy mën a fexee ba tous les candidats mën a participer librement sénégalais tànn ndax réew mi yàgg na folli mais ren ji réew dafa war a fal te fal boobu nañu may sénégalais ñu tànn ku leen neex ku ñu yaakaar gis nga luppe woon nañu lii ci jamono démocratie bi nga xamee ne que defoon nañ ko fi ak ak Mamadou jax Sénégal reculé perte lu bëri gis nga un pays doit être libre tey jii de s'autodéterminer te dañuy ragal ne que ne dafa am ay la main de la France la main de yenn dëkk yoo xamee ne que ak certains investisseurs yoo xam ne dafa ne ñi arrangé wu leen donc dañuy teg ay mesures yoo xamee ne que ne soit par le biais des. parrainage ñu éliminer leen soit par le biais de ay question tappale ban Sénégal lañ nekk ba nga xam ne dañuy wax ay Karim Wade ndax am na binational ak ak ñàkk ne fii moo fi nekkoon président non kan moo mën a ne ndax français la ndax sénégalais la wala lan mooy ces questions là. est-ce que yow tiitoo ci étape yooyu parrainage ak yeneen ak yeneen ngeen a jéggi pour yegg ci élection présidentielle bi. Eh, gannaaw yàlla de xamuma lan war a tiit ñun tiituñu si dara ñu sant yàlla bu baax a baax comme yeneen candidat yëpp am na ay cent candidats dégg naa yoo xam ne que ñu ngi fii pratiquement waaw ak ñeneen ñoo xam ne ñëwaguñu waaye na ñëpp dem ci parrainage parrainage bi c'est un filtre c'est un bon filtre mais par contre parrainage boo xamee ne que ne dañ ko war a def parrainage bu dëggu pas nga andi see parrainage ba matle ñëw toog nga gis ñu ne non yow sa genn n'importe candidat mën a xool véritablement est-ce que kii ñuy wax ne que doublon la ci fan la doublé fan lañ ko def est-ce que doublon la dafa dugal candidat bi ak dugal candidat bi on doit nous donner une transparence boo xamee ne que un retour doit être fait a l'ensemble de candidats quand dafa am ay doublon ngeen leen kat te mu pare ne la def na fii ak def na fii ba pare ñu tijjiwaat un délai un délai de recours boo xamee ne que ni war na mën a mat pratiquement deux semaines ou trois semaines pour permettre aux candidats ñu dellu par rapport au doublon dem seeti jiwaat leneen mottali seen parrainage yi dindi doublon yooyu képp koo xamee ne que yow matal nga parenage war nañ la mën a bàyyi nga dem Sénégalais yi tànn bu ñu dégloo ñu déglu sa programme déglu say vision xool lan nga leen wax bu leen doyee ñu voté la bu leen doyul it ñu xam ne que doyu leen mu nekk noonu mooy doon laaj bu mujj bi président Macky Sall mi ngay wax léegi tànn na candidat wam ci week bi mais dégg nañu ko mu ne moom dina def lépp ba coalition am gagné loolu yéen ñi bëgg a doon ay mbër ci élection bi bu ngeen déggee loolu lan la leen di def. ñun déjà Macky ak moom ci boppam ak ay candidats am intéressé wuñu nañ def lu leen neex seen biir li ñu jàpp mooy euh, Sénégal dafa am rendez-vous avec son destin Sénégal toll na foo xamee ne que ne euh, ci jamono tànn say njiit. tànnin nu mu gën a rafetee la ñu la ñu toll te ñu ngi ñaan tey ji ni sénégalais yëpp nañ bàyyi xel ci élection yi bu mu nekk élection yoo xamee ne que élection jaay doole jaay doole mooy saaku ceeb xaaju guddi ñu ñëw distribuer ko ci benn localité rafle voie yëpp wala parce que jënd nañ nit ñi joxe nañ fa xaalis wala nooteel am na wala ñuy menacer nit ñi boo joxe yow boo voté feneen dooto amati ay bourse familiale ak affaire mel noonu déedéet élection du noonu loolu jiixi jaaxa lay andi ci réew mi problème lay andi ci réew mi réew mi en a marre de pouvoir bi réew mi en a marre de Benno Bokk Yaakaar réew mi en a du président Sall ak ay ñoñam nañ ko xamee noonu ñooñu jeexal nañu bu doon suñu sago président Sall rocci loxoom ci ndab li génn na ñu ngi saluer sa décision sage qu'il avait pas à prendre de dire que je ne vais pas me renouveler je ne vais pas me représenter en troisième mandat dootul def fii ñi ñetteel mandat waaw baax na dootuma def ñetteel mandat wante su ma bëggee jël candidat laxasu ci gannaawam ne maay dem campagnal ko pour gagnal ko waaw kooku mooy man maa ngi préparé wu pour def ñetteel mandat bu dul loolu ban intérêt la si am il a pas d'intérêt agir amul lu mu war nekk di yëngatu ci loolu ñun lu ñuy ñaan na xoolaat boppam génn nu mu gën a rafetee bàyyi affaire élection Sénégal mu organiser ko nu mu gën a transparent we nu mu gën a inclusive permettre ñëpp participer si élection yi nekk élection jàmm ak salaam ndaxte pour la première fois enjeu bi encore une fois fii dañuy fali ji dañu war a tànn te Sénégal namoon na lii waaw bu ñu dàq kenn nañ bàyyi ma paate ma sàmba ma demba ñëpp bokk ku bëgg a bokk na bokk sénégalais yi gëmmantiwuñu gëmuñu nelawuñu ñu xippi xool tànn ñi nga xamee ne ko doy na leen te ñooñu tànn nag ñu bàyyi leen ñu liggéey après te ñu wàññi politique bu bëri bi ak wax waxu politique ñu wax waxu économie waxu développement ak nu ñuy xeexee ci ñu li ñuy woote mooy souveraineté boo amul sa souveraineté sa réew boo ko moomul boo ko yorewul doo mën a développé banque mondiale FMI a keneen ak keneen ñooñu ñëpp institution yooyu kenn mësu si développé fenn benn réew nañu décomplexé les mentalités ñu gëm suñu bopp xool li nga xamee ne que dañuy dem di ko jébaane ci bitim réew ñu fexe liggéeyal ko suñu bopp xëcc ko mu dugg fii ci dëkk bi ñu commencé ko liggéey jàppale appuyer suñu pêcheurs yi appuyer agriculteur appuyer suñu éducation bi appuyer suñu jeunesse jox nit ñi emploi barsaax bi ñu arrêté ko mbëkk bi ñu arrêté ko fexe ba nga xamee ne ñu nekk ci réew jeex na loolu mooy développement développement mais su lu dul nga ni ngay am yërmande yow si population bi nga xam ne moom nga aspiré jiite ndaxte boo amee yërmande si ñoom mooy yaa ngi déglu ñoom lan mooy seen préoccupation lan mooy seen mbëbët te mbëbët yooyu ñu am yaa ngi xool yow yan saafara nga am pour fajal leen ko te loolu mooy suñu tànk te loolu moo ñu tax a jóg. jërëjëf Alpha Thiam amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi ñu ngi lay gërëm. maa lay sant la gërëm madame Ngom à très